noo ngi ciy sant yàlla bu baax ci bàyyi gum nu fi bàyyi bañ fekke ko ren di ko ñaanaatit mu may nañu fekkee ko déwén di ci fàttali nag ne weer yi ñuy romb di ko lim bala ñoo àgg ci ay weer dañuy lim ay guddi ak i bëccëg mooy ab bés di ko lim ba mu matu ba mu mat weer di ko lim ba mu def am limu di ci dolli di dolliku waat di dolliku waat seen ñëw googu ak dem nag muy jant bu fenk ak bu so lim gën a tegtale bokk na ca nit man nit mën caa xamee waxtuy liggéey ak waxtu yu wàcc waaye lam ca gën a mën a jàngate ci xóotal ko mooy fenkee ba so rek mu xam ne ab diggam mi ngi gën di jege ci li tax mu mat seetlu bari ko waajal mbir ne suba dana ko def te suba fekk ko fi bari na lool it ku ne na na bàyyi ba suba mu settal nangam ji loxo lay lay àgge moo tax la suñu borom waxoon nit daf ciy gën di teg bëtam saa su nekk saa bu digg ba agsee dara du ca topp ak lu mu ko mën a fekk yàlla na nu fekk nag ca lam ñu lam ñu war a fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne kenn ku nekk ba muy faatu la ko faatu fekk ca lañ koy tàmbalee àtte yàlla nay doon nag la gën moo tax bu am at jàllee nit ki war naa xam ne ay bis yu bare bare bari buñ jàllee nag jàlluñu noonu rek dem su ko xoolee ci damar jim dugu dugg mu di ko yóbbu dëkk ak dekk tok bi tok du ko wàcc waaye moo koy yóbbu ci dekk bam jëm lu ko waral moy tok bi mo ne ci li daw bop kilomètre yooyu muy rombu yit mu di ko xamal ne fii ak nangama ca dess lu mu ay bop di gën jek dekk bam jëm motax aduna mi nga xamne liñ dugg mom lañ dugg muy dem di ñu nañuy bàyyi xel bu pexem yàqkat def ci dugg léeg-léeg mu naaguloo nit ki ne ko yow bokku goo ñi fi jóge léegi di ko ko woon ci anam yu bari say moroom daawuñ dem na gëne wala lii nga fi tàmbali faw yàlla rus la ba nga àggale ko mu door la fay jële su doon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du fi jóge ñuy dox ñu ko ëpp ay at fuuf moo tax Seydina Abdullahi ibnu Omar nee na yonent bi mas naa teg yoxoom yu tedd ya ca kaw mbaggam ma moom ne ko kaay ma déy la ma lay déy nag koo gis mën nga ko koo wax koo gis na ko maa ngi lay déy di la xamal na la adduna ni ngi fiy dunde ba du la bett mooy da nga fi jàppe sa bopp ab doxandéem doxandéem moom dëkk bu mu mën a nekk lu dëkk ba neex-neex ak lu mu xumb-xumb ñoru ko rek la ndax saa su nekk ñu ne ko kañ ngay ñibbi am na ñu koy laaj di ko di ko yëgloo na dëkkoo fi kon boog buñ xoolee lañ jotoon a xam ci ay nit yu ñu doon dégg ak yu ñu xamaloon suñu bopp te nekkatuñu fi dañuy xam ne leen fi jël duñu fi bàyyi walla boog ni ko jaar ci ab dëkk di jàll rek jaar ci dëkk di jàll moom Euh, taax yu kawe yi ca biir dëkk ba ak rafetaayu dëkk ba bu mu la ñor saw yoon dafa jaar rek moo tax kuñ doon jàpp kuñ jàppoon fii ci dëkk bi bëgg ko fitnaal quatre-vingt yi mu yor loo xam ne dañ ko doon tere ci jamono yooyu ku ko fi yor bañ ko bëggee sonal dana leen jëw mu fi kat yoon wee fa jaar dong ma jaar fi ku jàppee noonu adduna nag adduna du ko bett adduna du ko mën a nax moo tax moom abdullah ibn omar moom mu wax firi xadisu yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ bi tënk ko ci ay way waxta ni mu xamsan qubaylal si dane loo gont am ca soxla bul ne naa bàyyi ba suba waaye loo loo xëyit am ci yitte bul ne naa bàyyi ba ngoon wér gaawal balaa wér dikk ndax ñoom ñaar ñoo fi nekk ñooy ay ay waaye sa dund gi it bul ko sàkkal foo jàpp ne da nga fa àgg gaawal rek li ci war a def nga def ko ci moo tax at mu jàll ci ak dund liy tegtale ne at lu bari la mooy on dañ koy tëjum at bu fekkee day dégg tëj kese dana dana ko jàppe ne àddunaam fa lay tukkee waaye ki nga xam ne dañ ko ca digg dara moom lu mu war a jot moom it noonu la ko jàppe waaye suñ ko ne woon fekk at nga faatu moom day defe ne suba kon boog lee mu bëgg ak lii mu bañ na jiital li nga xam ne moom la bañ te bakkanam bañ ko taf te gannaawam lay jariñoo njariñ dëgg dëgg dëgg moo tax waajal tontu yi ñuy laaj yi ñuy tontu bis buñ ñuy laaj ci frontière ndax dem yi bari na te gaaw na lool moo tax lu waay doon def ci lu baax na gaaw fas ko yéene ful lu mu lu ko daloon ci ay càggante it na gaaw fexe ba gaaw bàyyi ko te fas yéene bañ caa delluwaat koo xam ne ku tayal la woon ba bu ñuy nodd fajar mu ne naa xaar tuuti ñaare ku ko wax rek biddanti naa xaar tuuti julli des na ku ko wax rek ñaare biddanti waaye ci nga xam ne it da doon day néeg néeg mooy naa néeg tuuti ah du léegi du léegi du léegi rek ci diggante bi lay dikk dikk yàlla nañu ci yàlla musal kon kenn ku ne ci war naa xool lim jot a ci dundam lam ca def tam wóor ko ne amu ci ndig waaye war naa xool la ci gën a fës yaata waxtoo ngi ni yoo xam ne julliwu ko ca waxtoom ak yoo xam ne daa sëgg rek mu jàll yal nañ ci yàlla musal loolu lépp nag càggante ya la koy tuub kon boog buntub tuub lu ubbi ko la loo xam ne at mu jot bunt bi day dañ koy ubbi fëlëngal bunt bu ñu ubbi fëlëngal mooy bunt boo xam ne dañ koy ubbi ba mu ne ŋàpp ñu teg ca loo xam ne du mën a ngelaw du ko mën a delloo siwaat muy buntu tuub bu at jàllee na xool at mi lim ci jot a def lam ci jot a def te muy ndigal muy rëcc rëcc ci moom na gaaw tuub te fexe at mii mu dugg la ko daloon daw bañ ko dal lam ca def ci rëcc rëcc mu fexe ba du ko delluwaat mukk di ko defaat ci ak dundam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee kat na ngeen fi amaku si néew dañ ne ko laaj ëllëg ëllëg yàlla dana laaj nit kii yu baree baree baree bari waaye ya ca gën a fës bokk na ca at yi nga ci def loo fi jot a def at yi nga def adduna lan lan nga ca def ba nga doonee ndaw amoon kàttan sa ndaw googee ci loo ko jeexal alal jang fa amoon foo ko jëlee woon ak loo ca jot a def la nga fa amoon ci xam-xamu ku si néew ana loo ca jëfe ak loo ca gindeek nit su fekkee dundu lépp dafa jeex ci ay caaxaan da nga layoog dund ko ci boppam moom ndax loolu taxutoon jox la ko dañ la ko abaloon rek boo koy delloo daa war a daa war a mel nam ma doon waaye sa ndaw ga it nga xam ne mën nga tëb ay pax di tëb ay bant di tëb ay garab tëb googa it ci loo doon tëb jëm mbaa du fecc mbaa du doxi caaxaan kese kese moom it da nga ko layoo ak ndaw ga ndax yàlla dala ko abaloon tàmm ca jaamu yàlla tàmm ca moytu ba bis boo doonee mag fekk miin nga ko tàmm nga ko sa xol bëgg ko waaye sa alal ji foo ko jële woon ma nga toogoon fa mu toog di xaar jaamu yàlla bu ko jaamoo yàlla nga ne ko fa coppet lu la neex nga def ko ca séetoo ca lu neex yàlla ak lu mu sant ak alal ji waaye it xam-xam bi nga amoon it ne guun ak moom moom it da layoog ñi nga xam ne dañ naan buma ko waxon ma def ko mo tax sëñ bi bind na ci ab téere bi fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa ibtala moo tax nit ki mën naa xam boppam ci ñi muy àndal wala ñi dëkkal na xool rek buñ noddee jamono ji ñuy nodd nu ko nit ña teewloo ba mu àgg teewlu nga mooy fas yéene buy daanu rek mun a waaye day gis ñoo xam ne bu nodd yi dengoonoo dañu naan ci waji kay mënu fee def dara ndax nodd yu bari yi loolu pas-pas bu tàmbale yàqu la yàlla ñu ci yàlla musal am na ñoo xam ne lañuy def lu mën a doon nodd du leen ko yàqal jullit du leen ko yàqal ñooñu it war nañoo wàññiku te moo ne yoon woo jaar ci yoon yi moo xam day fees dell ak ñëw jiiteel ñuy dem ak ñooy taseel ñuy dikk fuñ jëm wuti àdduna kese bokk yi koo xam ne nag saa bu jant bi soo fenkee ba so limub ay weer tàmbalee wàññiku ay fan limub ay weer tàmbalee wàññiku bu weer wa jeexee limub ay at tàmbalee jeex di wàññiku yim fi nar a am bis bi mu di ko gën di jege te moo ne day koo ne yàlla nga dem aljana mu nangu lool bég ca lool walla yow ñu nitu aljanna nga waaye soo ko ne yàlla nga faatu balaa déwén ki ma gën a bañ ci nit ñi mooy kii ma waa wax ji te moo ne mënu su dem àjjana te faatu amul ba nopp moo tax kon ginnaaw buntu tuub ubbiku na te at jàll na ku ne mën naa xam boppam mën na gën a xam boppam ñépp ku dul yàlla su ko defee mu daal di ubbi buntu tuub bañ a génnati ba faw yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp te yërëmal ñi suñu way dawlu yi nga xam ne ci at mi lañ fi bàyyi ko rawatina ci fan yi nga xam ne moom lañu mujj seenug yaafus yóbbuwu leen ñun ñi fi desit di ko nett li suñu njàmbaar bàyyi wunu fi yàlla na ko fekk déwén te encore yàlla ñu ko suñu borom wëlbatil muy ak caawaataane gu jëm ci jaamu ko te wéetal ko te tey ko suñu tànk ci ay ndigalam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin